快！ man la jeng Sala euh, dëkk Oncar Santhi euh, club bi mo ngi tuddu club panter noir di Mbour euh, dëkkee Oncar ci enfant terre diso waaw prestation bi manam dal contane nañ ci bu baakha baax tamit di ñaanal monsieur le maire lim bëgg moko xam yalla ko suñu borom def mais contane nañ ci bu baakha a baax et puis ak niñu gaay gars dalale tamit ak programme bi ni mu démé ni xalé panter noir mom ku leen xam-xam ci ak fayda te buñ duggé ñepp xamni duggu nañ. acha wa maître Badou Ba voilà club bi mo nek Langsuen sanjara amna Langsuen Mbour parce que ñun ay doomu Mbour lañ bu ñu woyé lo xamanteni armation yépp ñoo wara a wané liñ mën ñun ñu ñëw ci wax deug ne yalla kontaan rek lañ ci am pour ñu wané luñu mën pour ñëpp mën ñu xam ñun lu ñu gën a intéressé mo jël boy yi teg leen ci en règle ñu nek fédération sénégalaise de kung fu ba paré affilié suñu saal am ay combattant niveau national voilà sa compétition ñu dem championnat Sénégal lañu dem di gagner ay médailles ligue régionale de Kees bu xawalee ñu ñu dem gagné fa ay médailles loolu laa doon expliqué sànq ma ne la dem nañ championnat ligue de ligue de am nañ fa 6 médailles d'or 5 médailles argent ak 3 bronze kon loolu nag performance la boo xamante ni bu am solo la tey ñu saal bi yàggul dara 2019 lañ ko démarré voilà ñu ngi si lancé boo xam ne incha allah daal ca kaw ci kanam daal. waaw man la Mor Sall nekk conseil municipal fii ci mairie bu Mbour. Euh, Mbour en fait. مسلم مرسخ إذا صلى دفع أم قس قس بمك بوم أم تدرك بمبور عندك أن ينكوز من سبال بيب أم سلس بوم أم صلو بيو سلس أم لم نك تجينا مسلم مرسخ إذا صلى دي كل لجيه الجودي أكبتك بي مسلم مرسخ إذا صلى أمي خلاتو مور أم فت ندوم بقتل دوم مبور فات diggante 24 décembre ba keroog 31 décembre ñuy génn Mbuur dem fenn dafa seetaani dara bañ jéggaani fenn dara ci biir loolu Senes am lem ci lañ amee gis-gis ñoom ci ndigalu seen maire Cheikh sal Sall ni dañuy organiser benn journée armation boo xam ni <coughs> képp ku def armation ci waxuma ci biir Mbuur waaye ci département bi nga ñëw ñu ànd ko ak yow ci loolu monsieur le maire am engagement ni dina commencer ren en tant que mi ngi nek maire Mbour at mu nek dina gëna yok gën ko taxawal gën ko taral and ci ak armation bi yëpp ci jappalé len ci taxaw len ba armation bu nek nga yëg sa fi ni fi ci commune Mbour la ci département Mbour bi yëpp am nañu un jeune maire bu ñuy tuddee Cheikh isa Sall bo am gis-gis am vision am xalaatu programme yeesal Mbour and ko ak conseil municipal bi yëpp pour taxawal lu melni gàcce nga la ma senes su am dem nag boo xoolee ci jitaay bi nii di nga xam ne senes bi yëpp muy góor muy jigéen yi xale yëpp ñu ngi nii teew tey ànd ak ñi nga xamante bi nii ñooy euh, ñiy def armation pour célébrer guddi gi nga xamante bi ni moom la ñu euh, jagleel armation bi ci département bi. Moustapha Ndiaye bokk mouvement am dem nekk président de la jeunesse du mouvement am dem. muy jeunesse bi nga xamante ni mooy ànd ak euh, monsieur le maire Cheikh Issa DG CDC. suñu teewaay tey nekkul lu dul euh, bis boo xamante ni dañ ci dajale mboolem ñuy def arts martiaux dëkk ci département de Mbour. dajale leen ci mbuur en fête bi offrir leen benn guddi boo xamante ni dañuy ñëw wan waa mbuur wan waa Sénégal wan waa àdduna que Mbour dëkku aar la Mbour dëkku ay champion la. donc lool mo waral suñu teewaay ñun ñëpp ñu ñëw tay taxaw di fêter les arts martiaux donc euh, mu nekk initiative bo xamanteni peut-être dinañ ci ñëw ci kanam bo xamanteni mouvement am dem jeunesse mouvement am dem ñoko ko and ci ak euh, conseil municipal bi yëpp donc duggal ko ci Mbour en fait mu doon bis bo xamanteni mën nañ ne bis bu inédit la bis bu fi mësula am la ñuy ñaan yàlla chaque année ñu pérenniser ba vraiment bëggloo nit ñi ar ñu xamné tamit lolu dafa bokku ci liy yar xalé mais aussi dafa bokku ci luy sécuriser xalé waaw ndax dina la yar dina la may self défense dina la may tamit maîtrise de soi et tout donc euh, lolu dal mo waral suñu téway tay ci jotaay bi quoi. di leen nuyu di leen euh, tatagal donc man le Matar euh man may euh, président de la commission sportive.

Euh, volet sportif bi nga xamanteni mom moy des la commission sportive euh, du dem Amdem euh, dafa yalla yag ci ay volets yu bare donc volet football def nañ ci ay djego yu aussi volet mais l'armée des arts martiaux l'art martial bi nga judo ay taekwondo dafa il y a des acteurs mais on n'a pas aussi euh, des tribunes ou bien des vitrines qui permettent de faire permettre démonstrations, de faire di di di wane seen démonstration di seen euh, des bi donc genre vitrine la boo dina leen permettre ñu seen comme nous avons fait defee Thiès ni koy un euh, football Dakar voire même donc au niveau national loolu ce waral ñu may ñu organiser leen niveau des armes.